Les patriotes sont là. La caravane patriotique est arrivée à Guy de Kaou. C'est lui, qui n'y a de monde. qui n'y a de monde. qui sont comme moi, qui sont comme moi. Appel de Dieu, fille de Rome, fille, je vais Félicitations, Pasteur de le président de la commission d'organisation Thiaroye Kaw kontaan nañu jiite Thiaroye Kaw kontaan nañu merci colonel Mbodj ci sa patriotisme ci sa taxawaay merci mooy moo doog bi match bi jeex na xëdd loolu rek moo fiy nekk ñu dugg biir jiite Thiaroye Kaw waaw dem ba ca mairie ba jël ma xata suuf bi génnee ko jël ma gëm yóbbu ko ba jàmm ngeen aal ma ko ma am nu moom noonu dong lay demee gars yi am na këy ak këy nag këy yi bokk ñu sama gars yi am ngeen machine bu mag ah ñi ñuy xaar ñetti mbaar ñi ñuy xaar Texaco gars yi il faut mu dox il faut mu dox waa ginnaaw raay moom ñi ngi xaar ci suba ba léegi xamuñu kay ngeen romb tunnel bi ba dugg ci biir gars yi na gaaw ginnaaw raay ragal du jéggi raay tey am na ñoo xam ne dañu dem raay waa boor bële waa boor bële waa boor bële duñu dem ginnaaw raay ñu nag ay dem ginnaaw raay jaajëf waay maqkatu suuf bi nag maqkatu suuf bi nekk fii ci mairie bi sama gars yi ñu koy def ñu koy def yëpp ba ci kaw il faut que la caravane avance